doucement. non yéen a ubbi parce que nii baaxul ubbi leen ko. c'est bon c'est bon c'est bon. waaw mais merci jërëjëf. wàcc leen euh, micro yi. xar xar xar. faites descendre les micros d'abord. voilà c'est bon. voilà. waaw mais maa ngi leen di. maa ngi leen di maa leen di gërëm di leen sant euh, je croyais que waxoon naa ak yéen léegi mais mais comme je l'ai dama ñëwoon dama ñëwoon accomplir sama devoir de citoyen mooy ñëw voter. Oh c'est bon je peux y aller voilà comme ni ma koy xewoon sànq dama ñëwoon accomplir sama devoir de citoyen ñëw voter si li ma waxoon sànq laay waxaat tey c'est un jour de fête c'est un jour où on célèbre la démocratie euh, maa ngi wax léegi benn journaliste ne ko li ma gis fii mooy wane ni war nañu réformer un peu le code électoral xoolaat les conditions de participation euh, euh, de certaines organisations ou bien de certaines euh, personnes indépendantes ci élection yi parce que li ma gis fii 41 listes 41 listes ñaari représentants moo nekk ci bureau de vote bi ça c'est un problème te loolu war nañ ci gën a réfléchir parce que c'est des milliards qu'on est en train de perdre le droit de participer à la à, à la compétition électorale c'est une chose mais quand même rationaliser nos maigres ressources xool ñi nga xam ni war nañu compétir ah ñu def ko loolu je pense que war nañ ci réfléchir on y avait yàgg nañu poser ce problème la rationaliser les élections mais rationaliser aussi les listes quarante et une listes pour man nous sommes en démocratie il faudrait pas que l'on pense que nous on veut faire dans la censure ou bien dans l'autocratie mais je crois quand même qu'il y des réflexions yoo xam ni war nañ ko mener pour que élection bu amate sur sur la base de de beaucoup d'éléments ñu xool exactement vraiment ñan ñoo mën a former ay pôle pour dem élection États-Unis ñoo ñu ëpp fuuf fuuf. il a il y a il les démocrates et les républicains dans d'autres pays aussi c'est un peu la même chose donc il ne faudrait pas que élection di ñu yàqal toujours maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vrai c'est une fête tout mais quand même je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut qu'on doit revoir en fait il y a une réglementation am na lu ñu fi teg pour que parti politique mën a exister mën a continuer di exister et ñun xam nañ ni mais au Sénégal cette réglementation là n'est pas respectée ñaata parti politique ñoo fi def seeni rapport à la fin du à fin de l'année et pourtant ça fait partie des conditions pour continuer à exister ñaata parti politique ñooy déposer seen rapport financier moi je pense que loolu war nañ ko xoolaat et puis approfondir réflexion bi pas pour limiter les gens mais nit ñi war nañu mën a nekk ci ay pôles yoo xam ni ñoom ñoo bokk gis-gis. du question rationaliser pour rationaliser mais je pense que sénégalais yi si boppam ñoom ñoo constaté lii pourquoi tey on nous dit il y a 41 listes mais on ne peut prendre on peut prendre cinq ça veut dire que 41 c'est trop. c'est trop donc il faut que loolu ñu xoolaat ko et là. on appelle les, tous les acteurs politiques après, donc à s'asseoir autour d'une tout cela parce qu'il de l'avenir la démocratie de notre pays parce que si on continue comme ça, suba mën nañu am 60 listes 70 listes. Mais le malheureusement bi élection anticipée la amu ci woon amu ci woon man j'ai je me suis battu contre le parrainage de 2019 à maintenant ba bii. ñu koy mujjee assemblée je me suis battu contre le parrainage sous sa forme actuelle donc war nañ ko mën a xoolaat de telle sorte que au moins une bonne partie des acteurs politiques ou bien des indépendants puissent participer à ces élections là et que tout le monde si s'y retrouve mais vraiment li ma gis fii C'est incroyable. Comment peut-on dire qu'on un grand mouvement, un grand parti politique, on n'a même pas de représentants dans les bureaux de vote. Et après, maintenant, pour résultat est Guinée, on va nous dire oui, il y a des problèmes ici. Mais tu n'es même pas capable d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. Comment peux-tu participer à une élection je crois même que dans les réformes que les gens doivent faire, on doit obliger On doit voir l'historique des partis, xool seen niveau de représentativité même dans les centres de vote même dans les bureaux de vote pour en tirer les les les les leçons pour man ku mënul am représentant dans un bureau de vote mais wax dëgg yàlla waroo mën a bokk élection. ah loolu moom euh, loolu c'est loolu c'est parce que Ndakaar dañ ko dénkaane woon. élection yi fi jaar yëpp gis ngeen xees yi ñu def 2024 élection présidentielle bi 286 000 voix la ñu amoon. xam ngeen luy deux cent quatre vingt six mille voix ñiy woote borom ndakaaru wu vingt huit mille voix la ñu amoon la différence c' est deux cent soixante tey nag may naa leen cent mille voix d' avance cent mille voix may naa leen ko d' avance mënuñu fexe ba egsi fii. gis nga man maay borom ndakaaro ci Zahir ak ci Batin je vous invite nag je vous invite yéen ñëpp maa leen invité venez danser le jazz avec nous tout <laughs> muy déclaration ki nga xamante ne euh, voilà kon muy réaction ki nga xamante ne moom moo di euh, Abass Fall euh, ginnaaw li nga xamante ne moom moo votam voilà kon mbokk yi muy réaction ki nga xamante ne moom moo di Abass Fall ginnaaw bi mu voté ba noppi kon euh, fi nga xamante ne moom moo di euh, ci centre euh, de vote Tata Marème fii ci West Foire comme ni ngeen ko gisee waaye itam ñëwaat na ci wala boog déggaat nga si déclaration yi nga xamante ne moom la daal di def kon nañ koy daal di accompagner tuuti rek ngir mu daal di génn moom Abass Fall ci otom delluwaat ci li nga xam ne moo di ci ay activité en attendant ce soir kon. mu ngi noonu moom Abass Fall di nuyoo ak ñi nga xam ne moo di certains euh, euh, militants euh, voilà mu ngi noonu moom Abass Fall kon def na li nga xam te moom moo di wala accomplir na son acte citoyen wala son devoir citoyen ba noppi ba noppi nag mu ngi noonu kon di waaj dellu. ci li nga xam te moom moo di à euh, ses activités muy noonu kon Abass Fall bi mu pare nag gis ngeen noonu yee euh, maire yi nga xamante ne ñoom ñoo ko xaar fii di ay militants ak ay sympathisants euh, ngir nuyoonte moom. voilà kon mu ngi noonu mbokk yi moom Abass Fall ginnaaw bi mu voté ba noppi kon mu ngi noonu euh, di euh, dem euh, waaye itam ñoo ko gisandoo. voilà kon ñoo ko ñoo ko gisandoo moom Abass Fall mu ngi noonu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen rek tuuti par rapport ak li nga xamante ne moom Abass Fall moom la daal di wax avant et après. avant et après li nga xamante ne euh, moom moo di euh, bi mu voté gis ngeen avant muy dugg euh, ci li nga xamante ne moom la daal di wax mu di côté participation li nga xamante ne moom moo di votant yi waaye itam bi mu génnee moom Abass Fall ba noppi dégg ngeen discours am ci li mu ko gën a accès mooy nombre de liste yi nga xamante ne kon nombre de liste yi nga xamante ne moom gis na ko fii te itam ñaaru na par rapport ak bëri bi nga xamante ne bëri na te bañ noppi ñoom am amuñu li nga xam te ne moom moo di ay représentant maanaam ay mandataire ci li euh, euh, bu ñu seetloo daanaka ñaari mandataire ñoo fi nekk te yëpp euh, suñ sukkandikoo ci information yi nga xam te moom la ñu jëlee sànq ci observateur maanaam représentant observateur yi moom nee na mandataire yooyu mandataire waa PASTEF la kon di wane toutes les autres quarante listes amuñu li nga xam te mu di ay mandataires te ay centre de vote yu bëri euh, on a recensé quelques informations yoo xam ne ci suñu ay confrères lañ ko jëlee nee nañu foofu itam daanaka liste yi amuñu li nga xam te ay mandataires ay benn ñaari mandataires nga gis ci li nga xam te moo di ci membre yi loolee tax moom Abass Fall mu ne kon parti politique wala mouvement bu mu mënti doon boo mënul am li nga xam te moo di représentant ci li nga xam moo di ci centre de vote yi euh, donc waroo mën a participer ci li nga xam te ci ay élections Euh, te jàpp na ne euh, lile bu weesoo euh, dinañu def ab njàngat bu yaa ci li nga xam te moo di ci parti politique yi parce que vous n'êtes pas sans savoir que parti politique yi fii ci Sénégal c'est plus de deux cents et quelques partis politiques